ayca Babou Sarr ay noonu wala Babou Sarr mooy waale jëli ndaamal Daaru Jóob waaw mais Serigne Mbaye mu la Jóob Babou <laughs> ku ma dofeen ndeysaan di def tout droit arène nationale Babou Sarr ndamal la force de mobilisation ndeysaan gars yi ñi jóge Diofior ñi ay étudiants jóge université gars yëpp def Mbour Tefess TV Dolfu TV Gaïndou TV les TV TV sont là waaw kii ci xaar yàlla Grand Yoff ñun dañuy liggéey balaa ñëw añ lii mooy priorité waaw añ indi wuñu fi waaw Zahra ñu doon tàmbal waaw mais. si campagne la si ni ma koy waxee. ah rang mooy gaaw. waaw ku xam baabu ñii la xamee waaw. Tout droit <laughs> kamina do tan ngeen di me kay dari na mo jige tama lang yun noonu Babou Sarr ah bo ko ko yon kanya ngay ñeero la kas ben ben ma jogi de borom Diofior eh Babou Diagne nu yoon dina Abdou waxal ak loolu waaw borom Diofior ndeysaan gis nañ taxawaat bi mu am ci xale yi moom Abdou waxal